jaay timbre wala quittance wala da ngay fay dempo. wala la yow ba yow saa bu la neexee rek nga ñëw ñu xott ci biir kër gi yow lu tax loolu. papa naa def maa ngi fi jubbu nañu xol jubbu nañu sax ay jàmm sant ak papa naa def ak baaral ak yooyu sama yoon nekku ci. yaa ngi dégg da ngaa war a toog seen kër toogal seen kër te ba taxawal bi ah. yow ban jour ngay xëy ci sa àdduna rek civilisé. bul dugg ci sama vie bul dugg ci sama vie yaa ngi dégg li ma la wax.

Dengar lima li ma na yo muy ñëw yow Abdou yor la dundal la Abdou mii nga ku may la ku dara am alalam gi mu lay ko doom mu may taral fi di ma yónni may dem ah ma koy jàppale ci léppam nga naan ma ay ni ni wax ma lu lay am ah, am am la koy yokkal. gis nga papa hmm. man boo ma xoolee suf. ci xam ne du ma jigéen boo xamante ne damay topp ci ginnaaw góor heure bu ma xëyee gàddu sama saak ñoom mu di ma financé. Hmm. waaw du gis nga ma kaw ba ci suuf damaa yor sama xëy di xëy di wàcc yor xaalis bu bari nag. Hmm? waaw gis nga Abdou. Hmm. maa koy jox mais Abdou du jox. yow mii yaa jox Abdou. waaw bu dee nag dalaa gëm loo leneen. Ah mu ngi koy yàq wala yow yaa ngi koy yàq. déedéet déedéet non man ndax bu fekkee ne da lay yónni may la 1000 francs la 2000 lu mu yor ko jëm ci. c'est que moom expliqué na ma sa cas ne ko damaa waroon jox misaalu kanamam waa photo parce que maa yor sécurité moom waxoon na ma ni la bëgg ko waxee bëgg su ko waxul yow la moo wax li. Hmm. wax ma ko wax. man Abdou. dama koo bëgg te yàlla tax. dèjà ah dama koo bëgg te yàlla. yii gëmee ma ko. ab lu ma soxla suba ba ngoon dama ciy dox. lu ma laaj ma jox ko ko. man rek laa bëgg. Hmm. mu takk ma. bëgg nga bëgg naa mu takk kay. laa illa maa am waaju garaaw joo xam hmm. Cheikh Bada Ndiaye. yaay borom Cheikh yi jinne yi Cheikh ay Cheikh kooku nag laa boole mu takk sëy bi kooku mën na daar daar mu sotti. waaw ah, waaw. loolu nga wax de. ngem bu guitare la mu takk la yow kay yow kay bëgg yow yow xaaral xaaral xool seen kii sax moom Abdou Ala yow yow lan noo tudd sax. Fatou Fatou F raw xaan bokkul. Hmm. seen raw xaan bokkul kii la ndox la ak safara. Ah. loolu àndul. barki démb de wax naa la nee naa la olof Ndiaye nee na. xoolal baal waxi olof Ndiaye dégg nga li ma la wax olof Ndiaye moom ngay teg ci suuf te jël yeneen mots exemplaires yi yeneen mots exemplaires yi ngay jël nga bàyyi olof Ndiaye bii moom ngeen di ngeen di taafantool dama koy diri ci réew mi waxal tubaab saapaar la rek. waaw tubaab saapaar la. waaw. ñàkk a xam li mu waral daa bari. te nag soo ma xamoon wala nga xam man maay kan. yaakaar naa li mu bëgg di ma ci jàppale ba mu neex. dama lay jàppale yow koy am nga xaalis xam lu ma la déglu. loolu dara. léegi yow doxal parce que affaire bi yombul de. dina hmm. bi faa mu sa raw xaan dugal raw xaanam dugalante la quoi da nga koy teg da nga koy dolli. man lu mu jar baax na. am nga 100000. moo 100000 day dara. ah <laughs> mais kan ay 500 000 800 000 nga wax No man no no, ah non non non loolu 100 000 bi pour dugalante la de jël sa raw xaan jox kii jox la raw xaan bu baax loolu allah léegi après ñu xool lu ñuy teg ci loxo sëñ beeg man moom li may dox dara man moom bëggul dara bëggul dara xanaa bëggoo dem Dubaï Dubaï waaw kay yow dina la ya yobbu dubai dama lay wuta sax passeport diplomatique. non heure bu la neex dem heure bu la neex dik si ma dem ma dem Chine. yow fa la neex. ci ci diplomate bi mën na la yobbu fune yow fo beug dem rek yow dal na sey bi ak ah? non diga sey hmm yow xoolal lii ma ci tek sama bakkan bi kon baax yow heure bu la neex di dugg di genn hmm. ya fi mom waye da keroog ma ñew fi nga riita mbala ma def ma lu la sax. non xam boobu xam jaay ki raal tegul. Euh, piis abonnement yi. man yaa tegul. da ngaa neex nag wax nañ la. ah yow la ah? da neex. déedéet da ngaa saf. ah <laughs> ay boo xaaral ma kii la. Ah? am lu ma teg ci sa loxo. Hmm. waaw. bul yëndu nag bàyyi yëndu. yëndu ma de naaj bi la naaj bi xam nga day tàmpi sama kanam yi. am teel lii rek. lii maa la ko may. Fayal. waaw. kontaan nga. bég yow fi mu maa yor sa lépp insécurité bi dinaa ci gën a veille sécurité dinaa ci gën a veille topp la di la xool mm. yow ah, comme Abdou nekk fi ñun jëm mm. maa ko nga bëgg kon tey daal moom da indi jàmm laa eh, yow jàmm ngay am loolu nga wax de eh, ah yow jàmm taw feex sëy yaare Abdou dina ma takk bu la takkul ma xaaj te mooy kii Aya loo loolu du problème. pour mën a yow rek. waaw waaye na la leen de loo lekk ci man lu nekk. Hmm. boo ko fayul di nga ko gis. non non aywa kon kon kay du ma ko gis kon du ma